le tiennent pour dit. Aujourd'hui, il s'agit pour notre pays de continuer sa marche dans la consolidation de, la, de sa démocratie. Nous sommes interpellés dans notre capacité de dépassement. Il nous faudra discuter entre acteurs si nous voulons tenir les délais. Nous avons beaucoup de suggestions parce que dans ce pays, grâce à Dieu, Nous avons les ressources humaines, les ressources intellectuelles pour avancer ensemble. Nous avons eu toutes sortes de propositions. Beaucoup de schémas ont été esquissés. Il faudra se parler. Il faudra en parler. La coalition Khalifa Président considère aujourd'hui que cette exigence de se parler, de discuter, elle devra être de mise pour chacun de nous. Vous savez, ce pays, c'est dommage, on ne peut plus se parler. La calomnie, les insultes sont devenues monnaie courante. La suspicion. Il y a un terrorisme dans ce pays qui veut que quelqu'un ne joue à quelqu'un. Quand on la suspecté là, il y a un palais. deux fois nee nañu maa nga palais di waxtaan je vous avais dit ici et je le répète de manière solennelle et officielle je dois parler au président je veux parler au président il souhaite que le président me le président veut me parler je parlerai au président ci leer ci lu wóor du ma ko nëbb du ma ko làq si je dois aller au palais j'irai au palais mais c'est ma décision c'est notre décision kenn ñemeetu fi wax damay wax ak Macky kenn ñemeetu fi wax damay gis Macky pourquoi comme si les gens ont commencé à exister en 2024 dans ce pays on s'est toujours parlé ce pays a traversé des crises énormes vous vous souvenez même l'accession du président Abdou Diouf en 80 a été l'occasion de disputes Vous avez vécu 83, vous avez vécu 88, vous avez vécu 94, vous avez vécu 96, vous avez vécu 98, vous avez vécu 2000. Tous ces moments-là, c'est des moments où l'unité nationale, la cohésion nationale, notre société, notre pays avait été interpellé. Nous avons pu tout parce que nous nous sommes parlés personne ne nous empêchera de parler et Je suis un partisan acharné du dialogue et de la discussion. Mais je dis chaque chose en son temps. Et si on doit parler, on l'assume. su may seeti Macky Sall di wax ak Macky Sall fang laa koy def bëccëg ak guddi pale fu mu mënta doon mais du ma ko làq du ma ko nëbb que les gens le sachent une fois pour tout su may dem du ay tiktokeur xam nu ngeen leen tuddee qui va annoncer que je deux fois on m'a dit je benn bi j'étais en réunion jusqu'à 4 heures du matin hier j'étais à Grand F on me dit je suis au palais ma ni nga su dem palais fàng lay doon amul làq amul nëbbatu j'ai besoin de voir le président de la je lui demande de de me recevoir il a besoin de me voir il me sollicite je vais le voir quand je pense que c'est utile alors c'est quoi cette tyrannie là c'est quoi cette suspicion ki nanguwul jàkkaarloog sa adversaire da nga wóoluwul sa bopp soo demee seeti wax ak Macky Sall day wax jox la nga wax delloo ko moi je suis dans l'opposition depuis vingt-quatre ans je n'ai rien à prouver amatuma lu muy prouver fii ci réew mi xam lu bari fekkee lu bari man lu bari nag alors qu'on arrête cette manière de faire aujourd'hui on insulte les gens di leen tuumaal di leen waxal lu ne fu ko yëg faut pas que les gens ku nekk am nga ndey am nga baay am nga njaboot am nga doom koo fi wax lu metteeg lu naqadi mën na la ko delloo c'est que am na ñu ñenn ñu jombal seen bopp am na ñu ñenn ñu rus looloo tax loolooy différence bi avec certains mais fii lu ne yomb na fi nag quand j'étais jeune socialiste su amoon ñu daan nganda ngandaloog di balballu dañ leen wax ne xoolal réewande kenn gisul fu ñu koy jaayee ku mu neex réew mbubb la ku ko sol mu jot la ku mu neex nga réew faut que les gens comprennent que on en a assez assez de cette tyrannie là di sos ak tuuma la ko il faut que réew mi dellu si ci la mu waru woon bàyyi mooy waxtaan mooy déggoo mooy juboo waxtaan c'est pas parce qu'on se parle qu'on s'entendra non mais au moins qu'on se parle ñun ñii ruuma ndaata ko waxtaan yi dañ leen tudd tudd ñu leen amuleen tere parce que xam nañ ne am nañ droit waxtaan seulement ñun biñ koy def Sénégal yëpp xamoon nañ ñu ngi waxtaan c'est la seule différence et on assume ça donc je veux vraiment que ce débat la de dem présidence ak bañ dem chaque jour ñu yëgal leen ni maa ngi président demaguma fa mais su may dem ma ni du tàggoo danaa yëgle su ma dell seet danaa leen yëgal parce que c'est ça mon devoir d'homme public qui a des comptes à vous rendre ma ma dellu si li nga xam ni mooy aali kale ji mooy fii ñu jëm élection yi incha allah dana am 2024 loolu la conseil constitutionnel décidé nan lay amee ñun ñoo koy waxtaane président Macky Sall dafa war jël responsabilité mais ku nekk ci ñun dafa war jël responsabilité parce que conseil ñun la delloo yëf ci léegi nee na nañu waxtaan ñu arrêté délai yi ñu arrêté date yi wax naa leen ñaari façon yi fi am est-ce que dañuy def élection dañu bëgg def élection que président Macky Sall organisé ko 2 avril mu passer le pouvoir à son successeur ou est-ce que day def leneen li gën mooy mu jox pouvoir bi son successeur ñeneen ñuy wax ñëpp dañuy bëgg wax lu leen neex parce que au-delà au-delà du 2 avril le président Macky Sall ne peut plus rien faire dégg naa dañu bëgg changer conseil constitutionnel pour def ko cour constitutionnel suñ ko defee da dañuy changer loi bi mënul ne bii moom wéy na jeeg bay wéy na mbuus suñ doon def it dañuy jéem def des dispositions transitoires pour annihiler li nga xam ni moom mais boobaa sénégalais duñ ko nangu mani xam nga li réew mi wane mooy lan mooy que ni fii rien ne sera plus comme avant am na lu kenn dootul nangu donc il faut que askan wi comprendre ñun acteurs yi ñoo war jël suñu matuwaay président Macky Sall moo war jël matuwaayam ñu toog waxtaane parce que munu ci ñàkk pour nan la ñuy defee exécuter nan la ñuy mettre en œuvre décision wu conseil constitutionnel loolu moo am solo en tout cas man Khalifa Sall je suis prêt je suis prêt à assumer parce que dama xam lu bari fekkee mais surtout parce que je suis prêt à être le prochain président de la République du Sénégal j'en ai tous les moyens et les capacités mais surtout aujourd'hui il faut que nit ñi xam ni liggéeyal Sénégal moo ñu ñor te ku nekk da nga war mel na nga war a mel donc nañu waxtaane lépp nañu doxale lépp pour que seul le Sénégal puisse sortir vainqueur de cette situation et que le respect que les autres nous vouent, nous continuons à le mériter. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je suis que Macky Sall Ouais, je, je, disais, j'ai dit à propos d'une attitude, en tout cas, il se sursure. Parce que nit ku nekk da nga wax lu la wóor. Il se sursure qu'il y aurait des velléités, en tout cas certains partisans de la majorité veulent pousser le président à ne pas respecter la décision du Conseil. Au prétexte, selon surtout certains, que le conseil ne serait pas légitime ou crédible kooku béy wey na mbuus béy wey na mbuus ah excusez je désolé alors donc je voulais dire que c'est vraiment euh, un débat dépassé le conseil constitutionnel conformément aux dispositions de la constitution